école bi de amul sécurité te miir yi wóorul am na classe yoo xam ne tamit wóorul classe yi dañ leen mujjee tëj parce que bóoru ci élèves yi te aussi tamit toilette yi moo ngi nii ñaari toilette la woon benn bi pour jigéen yi beneen bi pour góor yi léegi yu góor yi dañ ko obligé tëj ndax baaxul léegi be dafa bëri ay toj toj miir yi day daanu wóorul daal léegi dañoo obligé góor ñi dañuy ñëw si toilette jigéen yi ah dañuy tiit moom bu ñu fiy jàngee moom dañuy tiit dañuy bañ mu màbb suñu kaw mm-hmm. imaginel booy dugg si école école amul sa bunt buntu amu ko amul buntu amul benn sécurité booy dugg si sax da ngay tiit ñun bu ñu toogee si classe yi suñu fit yi du toog mm-hmm. te suñu xel daal du dal la ñuy jàngee tamit waaw mm-hmm. ah ki fi tabax moom dafa saboote comme si que dafa ñëw ne salaamaaleykum maaleykum salaam kaay leen jàngi si. bâtiment yi soo si nekkee. Ça yi boo déggee bruit yi rek da ngay foog ne R plus 1 bi moo daanu. fii moom dañoo ragal carrément ñu ngi fii rek di góorgóorlu waaye conditions yi ne sont pas réunies élèves yi ñu ngi fii professeurs yi ñu ngi def le guerrier mais en fait élèves yi dañuy njëkk a yuuxu sax waaye professeurs yi ñoo leen gën toujours affaire de yi day daanu même seen kanam léegi actuellement am na am na xeer yoo xamante ni am na brique et vous voyez aussi si vous voyez la séparation les murs qui se il y a une accrétion miir yi dañuy baye euh, bayeku donc euh, vous voyez que da ngay gis ñaar mur yo xamante même pas 4 mois 5 mois nga gis y a un espace de 20 cm affaire yoy donc vraiment euh, depuis 2019 on est là dans ces conditions là bon c'est sûr que 2022 2023 les profite prof yi duñu dugg ci conditions yi. bon toilettes yi ñoo nek ni bon gis nga fissure yi mu am déjà gis nga fer mu ngi commencé di tordre kon ce qui veut dire que bâtiment bi mu ngi ngi reposer bon fe euh, mur yi fissuré na ba de l'intérieur tu vois l'extérieur là état bi lu demander demandé mu wax ci école bi soit mu délocaliser ko suñu fu mu leen parce que aussi sécuriser suñu parce que c'est des enfants yo ils ont droit à l'éducation. mais dans de bonnes conditions aussi alors indi leen duggal leen fi bon bo xamné ne suñuy ils sont pas à l'aise ils sont pas en sécurité alors ils mur bi euh, ba euh, bâtiment yi daanu kaw mais après bon c'est la catastrophe